yéen kaay gii di Walf Quotidien Abdoulaye dafa xëyee amal ab taxaw seetlu jëmale ko ci rapport maanaam jokkalante gi gi ne neexul ba neex waaye Pa Khalifa Sall jamono ji ndànk-ndànk lay doxee ndax dafay bañ daanu ci kàmb gi yéen kaay gi ci loolu xëy fësal xëy nag amal taxaw gi nga xam ne dox na ci diggante Ousmane ak ki nga xam di Khalifa leneen itamit loo xam yéen kaay gi xëy na ko fësal te mooy eh, mooy soins te mooy ñi nga xam daanaka gis nañ ne Euh, seen jàngoro daanaka euh, amatuñ yaakaar pour mu wër mhm. waaye faw ala kulaal ñu taxawu leen mhm. ñooñu nag ci biir hôpitaux yi ña nga ciy ay jafe-jafe yoo xam ne fook na terek weesu na fa noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale euh, boo demee ci kaso ci liberté 6 ñi nga xam ay jigéen lañu ñu teñ tëj leen fa ñi ngay fësal jafe-jafe yi nga xam lu ñuy dund jamono ji ci biir kaso yi Euh, nit dof teg euh, bàyyi nañ ko gannaaw ba nga xam ne def na juróom-benn weer juróom-ñetti weer kaso euh, match amical Sénégal Cameroun Sénégal kon mujj naa daan Cameroun lu ci toll ak benn bal ci dara noonu la ko yéene kaay gi di Walf Quotidien xëy Fesal Abdoulaye Seydina Amar Ba turbine lam ñu jukkil yéene turbine dafa xëyee dellusiwaat ci renouvellement mu soxal bureau assemblée nationale Khalifa Sall ak Yewwi Euh, yéen kaay gi ne tey coow li yëpp nag mooy war gi ñu jàpp ne Ousmane kii di Khalifa Sall da ko war kii di Ousmane Sonko loolu mu waral coow noonu la ko yéen kaay gi ne moom i sekk yéen kaay gi nag ne moom Bougane Gueye Dany la sol na dàllam kon fas yéene euh, soobu ci xeex bi noonu la ko yéen kaay gi di tribune xëy fësalee ministère chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains yéen kaay gi dafa xëy samp laaj bëgg a xam waa ministère boobu lee moom lan lu mu noonu la ko yéen kaay gi di tribune euh, euh, xëy fësale moom Amadou Ba nag jot naa dajek ay kilifa diine ba ci ay chef coutumier noonu la ko yéen gi xëy fësale ñoom nag ñëpp ñaanal nañ ko te dégg nañ ne ko incha noonu la ko yéen kaay gii di direct news xëy fësale am. yéen kaay geneen Dakar Times. yéen kaay gii di mu ngi woon fii ci jot naa dajeeg Abdoulaye Maxt Abdoulaye grand serigne dajeeg Pape Ibrahima Diagne grand serigne jot naa dajeeg imam Moussa Sam mi grand imam ratib bu grande mosquée jot naa dajeeg cardinal Théodore Adrien Sarr. moom Amadou Ba nag nee ni ki tey ji ba nga fas yéene utali fu ci mel ni Saint-Louis Richard Toll ak fële ci diwaanu Fouta fas yéene daje kilifa diine ya noonu la ko yéen kaay gi Dakar Times xëy fësale yéen kaay ne Boun Abdallah Dionne moom ma nga woon fële ci diwaanu Thiès yëkkati nay kàddu daal xam ne ne bu yàlla defee mu jotee ci bopp réew mi bokk na ci décision yi muy njëkk jël mooy fexe euh, ba jëlee fi accord de paix su ndax gis na ne Sénégalais jamono ji ñu ngi dund ay jafe-jafe ngir jën te nag wax dëgg askanam moo ko gën a ay milliards yoo xam ne nii daanaka tubaab yi ñu ngi ko jël di ko dugal ci kees nguur gi noonu la ko yéenekaay gii di révélation xëy fësal Abdoulaye euh, fës na ci le peuple côté yéenekaay gii di le peuple xëy dalal Mamadou Mamadou Lamine Diallo Mamadou Lamine Diallo ne bu yàlla defee mu doon président de la dana bokk ci décision yi muy njëkk a jël mooy fexe ba président bi fi nekk di koy topp ci yoon noonu la ko yéenekaay gi xëy fësale wax na nag programme bi nga xam ne am na ko ngir tegaat Sénégal ci kaw yoon yoon ci kaw yéen kaay yi di la ko procureur ci loolu la xëy dellu soor Abdoulaye yéen kaay bi di laas Anta Babacar Ngom ab ndaw la waaye tamit nit lu ko am xam jaar-jaar ci wàllu koom-koom yéen kaay gi ne ndax soxna si mënta jur betteel ci élection yi noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale ak lu ci mënta am rek jamono ji ma ngay wër parrainage fu nekk ma nga fay teg tànk yéen kaay gi la soon xëyte ji

quotidien xëy dellu soit ci euh, annulation bi nga xam ne ni euh, maanaam décision bi nga xam ne ni juge bi jël na ko fële ci Ziguinchor euh, daal di annulé inscription liste maanaam Ousmane Sonko bi nga xam ne dañoo ko ràjji si liste moom moo di Njaga Silla ñoom ñaan ñëpp ay expert lañu ci wàllu élection kenn ku ne di joxe ne ci xalaatam waaye ñoom ñëpp daal daanaka dañoo jox dëgg juge bi noonu la ko yéen a kaay giir Sud Quotidien xëy fesala Abdoulaye yéen a kaay A waaye yéen a kaay giir Source A bi décision mi wax ne euh, problème mu contumace moom moo tax ñu dellusiwaat Ousmane Sonko ci la nga xamoon ay mm-hmm. waaye yéen gi dafa jàpp ne bi moom dafa jaawal ay article noonu la ko yéen gi xëy fësal leen tamit eh, bu Cameroun mm-hmm. waaye combat boobu leen nag finalement ci benn ball ci dara la mujjee noonu la ko yéen gi sur sa xëy fësal euh, génnagul match xaritu waaye gi di enquête jongante xaritu la woon doxoon ci diggante Sénégal ak Cameroun waaye Sénégal mujj naa daan Cameroun lu mu nekk nag marché boo xam ne dafa wane ne suñu gaynde ba fa ñu nekkoon ba tey jóguñu fa noonu la ko yéenekaay gii di l'enquête xëy fësal Abdoulaye yéenekaay bi di stade xam nga Cameroun ak Sénégal ñoo bokk benn nag la nga xam ne wane na ko démb ci diggante ma Cameroun wane na um, seen xel daal dal ci coupe d'Afrique des nations bi di ñëw noonu la ko yéenekaay gii di stade xëy fësal Abdoulaye suñu lamb ko mu géewal wax ci combat gi war a dox ci diggante Modou Lô ak Ama Baldé am Modou Lô nag ma ngi ay kàddoom xam ne ne la mu bëgg ci Ama Baldé mooy mu prêt à 100 pour cent parce que bu koy daan bëgg na daal bu koy daan mu xam ne ne Ama Baldé bu prêt la daan waaye daal li wër te mooy xam ne ne Ama Baldé xam ne kuy Modou euh, te euh, combat bi dox seen diggante moom dana ko xam ne manager Ama Baldé yëkkati na kàddam daal xam ne ne combat boobule Ama Baldé dana yëkkati Modou Lô ba ci kaw dóor ko ci suuf noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale beneen combat nag war a dox ci diggante Tapha Tine ak Eumeu Sène ñoom nag hmm. na Tapha Tine jàkkaarloo na ak Eumeu Sène xamal ko ne ko dinaa la duuma dinaa la daan Eumeu seen xamal ko ne ko maa la mën maa la ëpp doole. Mhm. mu nekk nag combat yoo xam ne ni ñaari combat yu neex la ñu war koy jouer incha allah bi ci weer wi di ñëw incha allah. seen jokkalante kàddu bokk na ci sax liy neexal lamb laata ñu leen di géewal. mooy waaw euh, yenn saa yi ñu ñu ñu weccoo ay kaddu. waaw kenn ku ne dëkku sa bopp kenn ku sa combat. waaw jaay sa combat. da ci am solo. Mhm.